fii ci Yaraax quartier bu Hann Village bu ñu ko waxee nag xel yépp dem ci liggéey yu ñu fay amal ñeel pavage yi daanaka ci lu toll atak lu topp te soppi xax kanamu dëkk bi ba askan bi dafa yeewoo di ci artu suñu dëkk bi macha allah ñëpp ko naw kenn sonnatul ñu ñëpp ngi ñaan ñëpp ñu meroon sax meddi nañu billaahi dama kontaan te te pareegul ñi ñaan yàlla nag ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo bokk nañu yëkkatandoo dóorandoo defar suñu dëkk ndax ñoo moom suñu dëkk suñu dëkk bi macha allah ku fi dugg naw ñu. sànc yaa ngi daw xale yu góor yaa ngi liggéey ñi amul woon ñi ngi am xanaa leen rek moo seen defa de booloo ñu si jigéen ñi. ñu ngi sant yàlla boobu ba léegi liggéey bi mu ngi door xam nga même su fekkee ci koñ bi fi la ñu mujjee affaire yi xaw na yàgg tuuti sax mais peut-être xam naa dañu boo gisee ñu xaw ko yàggal tuuti xam naa dañu bëgg seen liggéey gën a normal gën a baax quoi moo tax ñu xaw a mujjee ci koñ bi comme loolu la ñu waxoon parce que comme koñ bi dafa travaux compliqué par rapport ak bi li ci nekkoon dafa xaw a bari il faut la ñu réglawaat assainissement bi réglawaat regards yi pour mën a continuer seen liggéey quoi même su fekkee assainissement bi ñun dañu doon xalaat noonu la ñu ko waroon defee defee wuñ ko noonu tamit parce que dañu doon xalaat ne assainissement bi peut-être dinañ changer tuyaux yeeg affaire yooyu noonu mais finalement lu ñu mujjee jàpp mooy dañuy def ko dañuy def

affaire bu nice la quoi affaire initiative bu rafet la mais affaire liggéey moom surtout koñ bi moom dafa xaw a des quoi parce que ñun fii la ñuy nekk di liggéey di fi daan suñu doole mais bu tawee ñun duñu a xëy ñëw suñu suñu suñu place bi parce que ndox bi day ñëw ba toll ak bi te damay ragal sax bu tawee yenn taw yi parce que fii moom léegi dafa kawe ba tibb place bi damay ragal sax mu daal dugg si biir atelier bi parce que boo xoolee koñ bi xuur la quoi parce que bu dafa def descente ñëw fii fii bu ñu koy defar gars du ma leen jàngal seen liggéey xam nañ seen liggéey mais ku ku ku xool di nga xam liggéey bi dafa des quoi parce que fii waroon nañ ko mën a yëkkati ba mu jóg après ñu def fi benn genre rigole bi nga xamante ne ndox bi bu ñëwee parce que ndox bi fii lay daje rigole bi daal di jël ndox bi daal di koy évacuer quoi man daal loolu laa gis sama gis-gis bu ndaw parce que liggéey bi dafa des moom franchement parler liggéey bi des na ci beneen wàllu wër Absa Diop moom ak gàngooram ñoom naam sax rafetlu nañu bile projet waaye rekk di ñaax meer bu Hann bel mu gëstu leen te bàyyi leen xel ngir ñoom it ñu mën cee bokk. idée bu nice la parce que dina fi dinde jàngoro yu bari yoo xamante ne nii doon na dal xale yi ak mag ñi parce que dina wàññi poussière dina joxe wér-gu-yaram. waaye nag li ñu naan xalam daa demoon bay neex buum nga nar a dagg te bu yàggee bu buum ngi daggee riiti gi moom dootul neex dëgg la fii nga taxaw nag sama buntu kër la fi la pavé bi yem mais nag dañ la booloo mooy doole mais su yemee fii eggul fee kon day ñaaw taw lu rafet moo taxoon ñu koy def léegi nag ñun li ñu bëggoon ñun ñëpp bu ñu sañoon deuxième phase bi moom ñu defar ko ndaxte moy tax mu bax waye li ni ni mu mel suñ ko bàyyee ni mu nawet bi ñëwee leppay dañ parce que côté bi nga xamante ni défaruñ ko bu suuf si wàccee fii day nak té pavé bi andul ak ciment té bu boba kon liñ ci défon yeb yaakaar naa dañ koy ñak té bu boba lool moy safara su jur jàngoro. ñun liñu soxla moy mu défar fep ndax fep ko bok xam nga mom du fi ñëw ni ñi ñomay may ñi ñomay bay bu né yarax rek yarax ay fi ne ni amul fi amul ci ginnaw amul ci kanam bu ne yarax yarax yeppay jog mais ñun li ñu soxla moy na defar fep ndax mëno defar fi bayyi fi mëno ni ki moma top ki duma top su yuxo ñeppay yuxu xalé yak mag ndaw ñi ñeppay jog kon bu defaree fen na defar fep ñun li ñu soxla moy nañu gess mu defaral ñu ñun ñepp ñu am ndax ñun lool lañ bëgg voilà mom fi mu yem fi mu yem parce que mom xamul kan mo kan mo kan moko top man may wax eh. fi mu yem fofu la partem yem fi nga amagul mooy ñi nga xam ne ñoo ko bëgg. leneen lu askan wi ñaawlu lool mu di ay borom oto yuy gaare seeni oto ci kaw tali bi te salfañe dem ak dikk nit ñi te mu mën leen jural ay jafe-jafe ci wàllum kaaraange. boo xoolee koñ bi yaatuwul noonu parce que pavage dafa xaw a wàññi koñ bi te xale yi fi lañu mën a foowee parce que oto bi tamit bu ñu fi nekkee xale yi du ñu am espace bu ñu foowee te loolu tamit beneen beneen beneen kii la quoi beneen pëcc xoola bu fekkee nit ñi day fukki di defar fukki nit di suul boobaawul. pënd bay wuure rek mais pax du mos a am quoi parce que boo xoolee nekkul doo tudd tur parce que ñun ñëpp benn lañ daal xam nga boo boolee kenn day mel ni sa bopp nga boole parce que Sénégal amul habitude dénoncer quoi mais rafetul tamit quoi parce que gars war nañ ci mën a jàpp daal di dindi seen oto yi fii nii ak yenn affaire yi nga xamante day xatal koñ bi yooyu yëpp war nañ ko fi mën a jëlee quoi benn du pour gaari oto. ni pour defar dëkk la suñu dëkk bi macha allah ñëpp ko naw dañoo bëgg nag ni ñi dem di gaare gi si fa ñuy gaare di fay 200 te bàyyi suñu mbedd yi mu yaatu ñu bale ko ba mu set wecc peinture ko ba mu rafet ku dugg si dëkk bi xam dëkk bi am na changement ñun loolu rek mooy suñu def suba gu ñu xëyee nag ñun ñu ngi garde ñiy tuur ndox ñi ngi garde ñiy gaare oto yi ñiy garde ñiy tuur mbalit ndaxte ñun loolu la ñu fekk suñu suñu waajur yi ñu koy def mu projet bu municipalité bi am dipeko sable à Yaraax waaye lu ñu ci gën a nemmeeku mu di bi ba askan wi di autorité municipale yi ñu Belep leen ba lépp antu